alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi tayyibina tahirin wa ala ashaabihi ajmain mbokk yi ñi ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala ñi ngi koy ñaan mu julli ca yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi seede ne moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu ca it moom dong moo yeyoo ñu koy ragal ak yaakaar gannaaw loolu mbokk julit ñi ngi koy sant ci lim ñu wàcceel ci téeréem bu tedd bii de alquran alquran boobu def na ko njub ñeel ay jaamam def ko mu leen di saafaral la nekk seen biiru xol waaye di leen saafaral la nga xam ne mooy seeni jëmm doonte ne bokk na musiba bu rëy bu ñuy nemmeeku tey ci biir julit ñi mooy la bari ci ñoom sori nañu seen diine la tax ñu sori ko mooy la nga xam ne mooy fañ waroon a jële diine jëleetuñ ko fa jëleetuñ ko ci alquran jëleetuñ ko ci sunna bal ay doomu aadama yoo xam ne ñoo indi seen xalaat ak seen xalaati maam ñoo leen di jëfandikoo di leen jëriñoo loolu moo tax ba bokk na la nga xam ne mooy pas-pas yi ñu amoon te yàlla néew na doole wékku gën waroon a wékku ci yàlla néew na doole seytaan yi jinni yi ak ak nit ñi am nañ occasion ci ñoom ci jaxase la nga xam ne mooy seeni xol jaxase la nga xam ne moom mooy seen pas-pas loolu la ñuy gis ci jullit yi tey lu bari ci ñoom lu ñu mën a yëg na doon loolu feebar la ci seen yaram wala tiis la boo dal seen bakkan la seytaan a jëkk a dugal ci ñoom ah lii day luñ la def la lii day rab la lii day luñ la yàqal la lii day luñ la liggéeye la loolee mbokk tax dañuy gaaw a jaxasoo aka neexoon buñ jaxasoo ci loolu ñu delluwaat ci seen boroom waaye déedéet dañuy dellu ca seytaani nit ñi mooy seetkat ya ak njabarkat ya soo ñëwee ñu ne la ah yow day yeex yow day am nga chance bi nga tey lay ñëw yàq woon nga ba pare ndax lii ñu la def laa ñu la def yow day rab moo la topp yow day jinn moo la topp faru rab nga am kaza wa kaza loolee gën a jaxase kooke nga xam ne moo ñëw ci moom mu wëlbatiku nekk benn prisonnier ci ay loxoom mu koy jox muy naan ka takk ka sangu bal da koy dëddale sax ak la nga xam ne mooy hôpitaux yi mu nekk benn musiba bu rëy boo xam ne ngallaawaay mbokk nañ ci bàyyi xel bokk na loo xamee ne nii ab dëj la bu ma dem ci semaine bi benn soxna boo xam ne ñetti weer la am ca néegu sëyam yàlla na too ko feebar au lieu ñu xalaat jël ko yóbbu hôpital ñu dem jël ko yóbbu ko ci maaman yi ñu naan leen rab la ak ngelaw la ak kaza wa kaza bañ demee ba lot ba indi ko hôpital ñu xool ko ne ko mais kii méningite la yor lu tax ngeen bàyyi ko ba heure bi ngeen doo ko indi mu def fan yi néew faatu wuy ji boroomam lan moo waral lii mooy pas-pas yoo xam ne yàqu nañ sunu société loolu moo tax ba mbokk jëlit bokk na loo xam ne nii constaté nañ ko nit ñi heure bu natt dalee ci seen bopp na doon seen yaram la wala jaaxle gu leen di dal loolee ndax ci lay yem déedéet waa ja nga jëm ca moom dana la teqale ak say dëkkandoo sa dëkkandoo sangam kii nga bokkal bureau sa wujj wi bal mën na la wax sax sa frère bi wala sa sœur bi bal mën na dem ba yàq diggante baay ak doom loolu mbokk lan moo koy waral mooy jullit ñi tey amuñu sukkandikaay amuñu delluwaay te moo ne day am nañ buur boo xam ne bu am kattan la boo xam ne dara tawu ko boo xam ne amul natt buy wàcc lu dul ci ndigalam amul luy mën a teggeeku lu dul ci ndigalam muy sunu boroom jalla wa ala doonte na boroom boobu am na ay sabab yum teg suñu loxo sabab yooyu ci la ñu nar a waxtaan tey amoon na xutba bu romb ca ajjuma yële doon wax ci suratul fatiha amma tey ñi ngi bëgg a fàttaliku li ñuy tudde almuawizaat mooy musluwaay yi li sunu borom subhanahu wa taala wàcceel ñu jullit ñi war koy jaf jëfandikoo ngir sabab lu muslu ci seen borom loolee mbokk mooy qul huwa allahu ahad qul auzu bil falaq qul a'udhu bin nas la ca rot ci addis ak a bari ci ngëneel ba nekk ci jàng ko ci biir julli ngëneel ba nekk ci jàng ko gannaaw julli ngëneel ba nekk jàng ko suba ngoon waaye ngëneel ba nekk ci di ko fajoo te feebaru yaram ya mbokk ki nga xam ne mooy Suhayl ibnu Muaz nee na day ñëw nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne leen képp koo xam ne dafa jàng xul huwa allahu ahad fukki yoon day yàlla dana ko tabaxal benn château ca aljanna Omar ibnul Xattaab ne ko ah yow mi yàlla yónni kon de ñun dañ bari lool luñ koy tari ndax suñuy château bari mu ne lu ngeen mën a bari la yàlla mu leen ëppale loolu mbokk kon yow julit bi wallahi am nañ sunu maam yu ñu gisoon ñoo xam ne ay jigéen lañu mënuñu woon a jàng alquran waaye sasoon nañ seen bopp bés bu nekk daan jàng junni qul huwa allahu ahad soo jàngee junni qul huwa allahu ahad tabaxal nañ la téeméeri château ci àjjana soo jàngoon téeméeri qul huwa allahu ahad tabaxal nañ la fukki château ci àjjana loo gën a bari le yàlla la gën a bari le loolu di mbir moo xam ne góor ak jigéen war nañ ci bàyyi xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na yónni benn armée armée boobu bañ demee ba ci yoon bi ka nga xam ne moo nekkoon seen amir di leen jiite heure bu jàngee benn saar rek balaa rukkoo tarixul wallahu ahad ah gaa yi comme mooy seen kilifa waxuñu dara bañ ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waa laaj leen ko lu tax mu koy def biñ demee laaj ko mu ne loolu moom mooy carte d'identité yàlla loolu moo tax ma bëgg di ko jàng bëgg dama ko bëgg moo tax ma koy jàng yonent bi alayhi salaam ne dellu leen ngeen ne ko bëgg gim bëgg xul wallahu ahad day yàlla bëgg na ko ngir loolu ay waay ñun góor ak jigéen nañ bëgg xul wallahu ahad baril di ko tari lool bal am na beneen riwaaya boo xam ne kii ci masjidu Xubaa la nekkoon moom day def bu taree fatiha tari qul huwallahu ahad doo ko tari beneen saar gaa yi ne ko hey da nga yem ci qul huwallahu ahad wala nga yem ci saar mu ne su ngeen bëggee ma jiite su ngeen bëggul ma bàyyi ban demee laaj ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu jaar fa waajo jaaroon dama bëgg saar bi yonent bi ne ko bëgg gi nga ko bëgg day dana la tàbbal aljanna mbokk mi ngi noonu di mbir moo xam ne ku ne ci ñun na ci góorgóorluwaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii di abi sayid al qudri radiallahu anhu benn benn waay ñëw na ci yenente bi na ko man day dama am benn dëkkandoo bu ma jaaxal mu ne ko lan la mu ne ko guddi damay dégg muy naafila waaye moom qul wallahu ahad dong lay répété léegi nag mel ne daal ko xeeb loolu waa ji def yenente bi alayhi salaam ne ko xanaa xamoo ne qul wallahu ahad day dana taxaw taxawaayu ceeru alquran heure boo jàngee qul wallahu ahad benn waay jàng ña la nga xam ne moom mooy ñaar fukki hizib ci alquran yu qul wallahu ahad nekkul sa qul wallahu ahad boobu dana toll na moom ci yoon loolee di mbir moo xam ne it war nañoo gën a ñaaxaat waaye mbokk na qul wallahu ahad ka muy jëriñ mooy ka koy jàng ci làmmiñam rek abadan ka nga xam ne da koy jëriñ mu mën koo bëgg tàbbal ko aljanna mooy ka xam lan mooy qul wallahu ahad mbokk qul huwallahu ahad mooy lan sunu borom danay xamal ne qul huwallahu ahad mooy xamal ne yàlla kenn rek la mooy kenn ki moom kenn ki ñuy jaamu kenn ki nga xam ne mooy borom àdduna ak alaxira allahu samad mooy yàlla mooy sang bi ñépp yaakaar nit ñaag jinne yaag malaaka ya wala fi dañuy wax wax boo xam ne aka neexoon ñu jëfe ko wala fi ñoo naan koo yaakaar yàlla la yaakaar waaw koo yaakaar yàlla la yaakaar comme moom da nga ko yaakaar ci yàlla la yaakaar téemaan dem directement yaakaar yàlla comme moom looloo tax ki gën a gàtt xel ci doomu aadama yi mooy ki yaakaar ne moroomu mindaafanam nit la jinne la wala malaaka la mën na koo gàddul addunaam wala mu gàddul ko àllaaxiraam abadan boo ko julit allahu wa samad moom dong lañu war a jublu yaakaar ko yàlla moomu jurul lam yalid walam yuulaat jurul kenn kenn juru ko nasaraan yi dañuy wax lu dul dëgg isa ibn maryam du doomu yàlla jaamu yàlla la yonent yàlla la yéefér yi doon wax ne malaaka yi doomu yàlla lañu waxuñu dëgg ay jaami yàlla la yu yàlla jegeel lañu sunu borom bu ne lam yakun lahu kufuwan ahad amul kenn koo xam ne nekk na nawle bi yàlla kenn melul ne moom kenn tolul ne moom looloo tax jomb na ci am doom moom dong mooy yàlla gi mu bokkul ak nguuram gi kenn amma mbokk buñ la doon tënkal xul aoudu bil falaq kii nga xam ne ne mooy uqba ibnu amir nee na ñëw nañu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ndax gaa yi gisu leen tey day yàlla wàcce na ci man loo xam ne kenn musul gis lu mel ne moom ci wàllu muslaay da ca mooy leen mooy qul aoudu bil falaq ak qul aoudu bi rabbi nnas yonent bi alayhi salaam nee na kenn musuloowul lu mel ne moom ey yow mi nga xam ne da ngaa dem waa ji defaral lan doom goo xam ne fay nga ko quinze mille ba jën boo xam ne dix mille ay pettaaw yoo xam ne nangam ay bitel yooyu del sa suufaroon lal tey nga jàpp ci yàlla nga dajale lépp lépp gas ba mu xool nga suul ko daa dina yàlla dellu naa ci yow nga dayloo qul huwa allahu ahad qul auzu bil falaq ak qul auzu bin nas ndax lu mel noonu amul yow jigéen bi nga xam ne yaay gàddu sa doom dem ñu koy defaral ay fas ak ay lu mën a doon tey ngaa sukkandiku ci yàlla jàng qul huwallahu ahad qul auzu bil falaq qul auzu bin nas raay sa bopp doom ñaan yàlla saafara ko lii mooy la nga xamee ne nii lu ëpp ci julli ñu réere nañ ko qul auzu bil falaq mooy maa ngi muslu ci boroom lépp loo xam ne day xar ca mooy lum mën a doon yàlla daa xar leneen génne ko ca mi ngi noonu doonte ne lu ëpp ñi ngi koy firi la nga xam ne mooy fajar bi nga xam ne moom la lëndëm nga di xotteeku leerug suba nga di ca génne lan ngay muslu min charri ma xalaq ci ayul li yàlla bind gaa yi yàlla subhanahu wa taala nee na allahu xaaliqu kulli cheyin dangaa ragal jinne yi yàlla leen bind dangaa ragal jaan yi yàlla leen bind dangaa ragal cancer ak jaboot ak tension yàllaa ko bind dangaa ragal tiis yeeg njàqare yi yàlla leen bind allahu xaaliqu kulli cheyin wa huwa ala kulli cheyin wakil yàlla moo bind lépp ca mooy taxaw lépp kon bi nga ne min charri ma xalaq daanaka dara génn ca doonte ne nag am na danger ci biir danger bokk na ci loolu la sunu borom subhanahu wa taala di wax wa min charri gaasiqin ida waqab ca mooy ayu lëndëm jamono bi muy tàllalu di dugg ci lu nekk ndax jamono boobu la shayatina yi di tasaaroo yonent bi alayhi salaam daan wax bu dee jant bi sono na ngeen téye seeni doom bu leen leen bàyyi ñuy génn ci mbedd mi gannaaw ba wa min sharri nafasaati wa min sharri nafasaati fil uqad nga ñaan yàlla musal la ci ñi nga xam ne dañuy ëf ca biir pas-pas ya mooy njabarkat yi nga xam ne bu la yàlla musalul mën nañoo jël seeni buum tudd tudd sa tur fas ko teqale la ak sa soxna wala dafloo la wala naawal la loolu lépp day am sunu borom yàlla subhanahu wa taala moo ko saxal ci ne njabar lu am la léegi nag borom bi ba mu ne am na nee na wa ma hum bi daarina bihi min ahadin illa bi iznillah duñ ci mën a lor kenn lu dul lu neex yàlla looloo tax au lieu que nga dem uti ay anti njabar waa joo xam ne mi ngi takk gàllaaj ba fees nan daa bañ ku ko def lu bon dellul ci ki nga xam ne mbooli mi njabarkatu jinn yi ak nit ñi buñ dajoon bëgg laa njabar dara du ci sotti lu dul la ko neex ca mooy min charri nafasaati fi luqat ña nga xam ne ñooy ëf ca pas-pas ya wa min charri xaasidin ida xasad bokk na luy mën a yàqal doomu aadama mooy koo xam ne da koo iñaane nga am xéewal am koo xam ne iñaane na la ko ku mel noonu nag mën naa jóg def ay pexe ngir yàqal la jamono bi muy jóg di def ay pexe lu ci bëri yow doo ko yëg loola tax sunu borom ne ñaanal mu musal la ci moom donte ne pexe yooyu mën na dem ba yegg ci bët bu bon bu mu lay xool ca mbokk yi yeneen ci bi alei salaam saxal na ne bët lu dëgg la loola tax nga war a muslu ci ayu képp koo xam ne day jóg di iñaan amma qul a'udhu bi rabbi nas mbokk julit gis nañu ne mooy saar bi mujj wàcc ci alquran sunu borom yàlla subhanahu wa taala bu ñuy seetloo lii nga xam ne moom mooy qul auzu bi rabbil falaq sunu borom yàlla subhanahu wa taala mi ngi ñuy sàkku ñu muslu ci ñeenti mbir donte ne rek nee nañ musloo ci borom ki nga xam ne lu xar moo ko xar waaye xoolal qul auzu rabbin nas sunu borom yàlla mi ngi ñuy jox ñetti melokaan yu bokk ci moom ngir ñu muslu ci benn mbir kese cay qul auzu mooy maa ngi laqu bi rabbi naas ci ki nga xam ne mooy borom nit ñi moo leen taxawe moo leen di wërsëgal mooy maliki naas buuru nit ñi nga xam ne mooy dogal ci ñoom lu ko neex lu mu dogal kenn mënu koo tegg mooy buur bi kese borom boobu mooy ilaahi naas ñi nga xam ne mboolem ku ñuy jaamu te du moom jaamu ko nen la moom dong moo yooyu ñu jaamu ko laa ilaha illa allah lii mbokk jullit dañuy gis ne ba nga musloo ci ñett yi kan ngay muslu mooy min charri l waswaasi l xannaas ci ay ki nga xam ne day jaxase ci biir dënn yi muy cheytaan nga xam ne moo lay jaxase yàq sa pas-pas gëm loola keneen ku dul yàlla dugal sa xol la nga xam ne mooy bëgg lu bon ak bañ lu baax heure boo xamee ni nii yaa ngi fàttaliku yàlla mu laqu heure boo sàggee ni mu dellu si sunu borom mu ne allazi waswisu fi suduri naas kay jaxase te la nga xam ne mooy dund nit ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne amul benn doomu aadama lu dul am na seytaane bu ko topp ngir réeral ko ci diine yàlla ji ñu ne ko ah même yow mi yàlla yónni mu ne même man lu dul yàlla moo ma ci musal mu daal di jébbalu duma digal lu dul lu baax amaa keneen ku dul moom seytaane mi ngi lay jaxase guddeeg bëccëg ngir yàqal la loolu nag ndax dafa doon seytaane jinne kese déedéet borom bi mu ne minal jinnati wan naas seytaane jinne yi doo leen gis ñooy dugal sa xol lu bon ñu mel noonu heure boo ko yëgee mu puus la ci bon sunu borom nee na da ngay muslu ci seytaan daa di dellu ci yàlla su ko defee mu làqu doonte am na beneen seytaane bu gën a garaaw mooy seytaane doomu aadama ca mooy képp koo xam ne yaa ngi woote ci ak réer ak luñ la mën a tudde ab sëriñ nga am am njabarkat nga am ak kum mën a doon ci ña nga xam ne ñooy woote ci réer ñooñee da ngay gis ne ay seytaane lañu loolu tax ngay muslu seytaane jinne yi ak seytaane nit ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nañ ne wax nag ibnu abbas ne ko ibnu abbas xanaa doo kaay ma wax la la gën ca la nga xam ne doomu aadama dana te muslu mu ne ko axekay yu mu yàlla yónni mu ne ko qul qul auzu rabbil falaq ak qul auzu bi rabbin naas ngal la waay julli ñi dellu leen ci loolu te bàyyi njabarkat yeeg caaxaankat yi abdullah ibnu xubayb nee na ñëw nañu bis yonent bi alayhi salaam ci jamono boo xam ne nii mi ngi dënu mi ngi xiin mi ngi ngelaw ñun ñëpp ñu tiit ñu ñëw ne ko ay yémi yàlla yónni ñaanal ñun ko dañoo tiit yonent bi alayhi salaam ne ko xul nee na ma ne ko lu lay wax mu ne ko xul wax ko ko ñetti yoon gannaaw bi mu ne ko na nga wax qul huwa allahu ahad qul auzu rabbil falaq qul auzu rabbin naas heure boo xëyee wax ko ñetti yoon bu ngoon jotee nga wax ko ñetti yoon na sa xel dal dana la fegal bépp lor mbokk mi ngi noonu dana la fegal bépp lor boo jullee fajar tariko bu nekk en ñetti yoon boo jullee timis tariko bu nekk ñetti yoon dana la fegal bépp ay bu nekk ca bëccëg ba ak bépp ay boo xam ne nekk na ci guddi ga looloo tax mbokk saar yaa ngi noonu ñu tudde leen al muawizaat te mooy buñ boolee qul wallahu ahad ak falaqi naas léeg-léeg nga dégg muawizatayni muy ñaari te mooy falaqi naas nañ bari qul huwa allahu ahad di ko jàng lu bëree bëri rawatine ñi nga xam ne yàlla mayu leen chance ñu mën a tiim téere bi yàlla bi di ko liir ngan la waay nañuy jël trente minutes ci seen dund toog jàng qul huwa allahu ahad yu bëri heure boo xamee ne julli nga ba sëlmal jàngal qul huwa allahu ahad qul auzu bil falaq qul auzu bin naas bu dee fajara def ko ñetti yoon bu dee timisa def ko ñetti yoon nañ ciy sàkku muslu la nga xam ne mooy sunu njaboot gi nga xam ne mënaguñ ko heure boo yégee ne am nga métit sa yaram jàngal qul huwa allahu ahad qul uzr bil falaq qul uzr bin naas raay ci métit boobu ba pare ñaan yàlla saafara la lii day mbokk julit saar la yoo xam ne gëm gëm koy gëm dana la saafaraal shirk ya nekkoon sa biir dënn ak la nga xam ne ñàkk wóolu sa borom waaye jàng nga koy jàng dana yëkk ci say daraja baril say tiyaaba waaye it dana la aar ci ay ya nekk ca biti moom la la qul uzr bil falaq di fegal ak ay ya nekk ca biir moom la la qul uzr bin naas di fegal yal na yàlla fegal ñu ayu shayatin al ins wal jinn yal na yàlla ay fegal ñu ayu lépp loo xam ne moom la bind yal na yàlla defaraat suñuy pas-pas dëppalee ko pas-pasu yonente bi ak sahabaam yal na yàlla defal ñu la nga xam ne mooy mujj gu rafet yal na yàlla wàcceel ñu jàmm ci suñu réew yal na yàlla wàcce jaamu ci réewu mboolem mi jilit yal na yàlla may ñu naataange gu dëppoo ngërëmam yal na yàlla jubal ñu dàqal ñu lori àdduna ak lori alaxira yal na yàlla rafetal sunu mucc ëllëg firdaw su nekk sunu wàccuwaay اللهم ربنا اتنا في دنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين